Ah, mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dellu santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi di ñaan yàlla xew-xew bi ñu jëm yàlla na yàlla may ñu bokk ci ñu koy yeggale bu yeggee lépp lu ci ne ci wàllu ñaan ak taxawaay yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi fii ci Tiwaawan ne ci ëttu kër Seydi Hadji Malick kër sëñ Babacar kàddu gii nag kàddu suñu kilifa la de la président national alaaji Mam Ousmane Samba, ak suñu kilifa président Khalifa Babacar Niang di la secrétaire à l'organisation bu Koskas mok ay action yi ko bokal alaaji Pape Amadou Faye ay président Ibrahima Djité kaddu gi nak kaddu soñat mbok jullit yi soññaat mbokk taalibe ci xew-xew bi ñu jëm muy guddi Seydina Mohamed te suñu maam ji ko woote muy Seydi Hadji Malick danaa wax ne mag mu amul lu dul benn dëgg di ko wax ci benn dëkk di ko wax ci benn guddi su jotee lu waay jàpp na ko bàyyi ñoo fekke ko appelu suñu maam Seydi Hadji boobu ba mu koy wax boobu ñun ñii juddooguñu waaye yàlla ci mbaaxam dañuy ci boole ba ñu toll ci deux mille vingt deux yàlla boole ci njaboot yi nga xam ne ñu ñaan ci yàlla yal nañu yàlla may wér ak kattan ba ñu mën a ñëw fekke ko buñ ko fekkee it les koskaas daan wax rek daan ko jëlee ci suñu responsable moral di sëriñ abdul Aziz Al Amin yal na yàlla dolli leeram waaye rakam ne fi di xalifa bi di sëriñ Babacar Sy Mansour mook njabootu Seydi Hadji yëpp ay rakam suñu bàyyi Alhaaji Malick si mawdo suñu bàyyi sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz suñu bàyyi alxaaji Mansour Abdoul ak seen rakk yi ñu ko bokk yëpp waaye muy rogalaat ba ci njabootu kër Seydi Aboubacar si suñu suñu kilifa sëriñ Moustapha Sy Jamil bu sëriñ Moustapha sëriñ Mansour Jamil sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si bu sëriñ Mansour Sy borom daara ji sëriñ Pape Babacar bu sëriñ Abdoul Aziz lu gën a miin ci Pape Aïda waaye ndigal li rogalaat ba ci seen rakk di sëriñ Moustapha bu sëriñ Abdoul Aziz di responsable moral bu COSCAS bu comité d'organisation muy soññaan bokk taalibe yi soññaan mbokk jullit yi waaye di soññaat ñu ndaw ñi muy ndawul xadara bi surtout nag ndawul COSCAS yi muy COSCAS bi nga xam ne mooy mouvement avant-garde

moo xam dañ la yebal ca daral ba ne la demal ca nag ya fa la sa yu ne moo xam dañ lay yebal circulation ne la régler oto yi fa la sa yu ne moo xam même dañ lay yebal ci cuisine ba ne la demal raxas boole yi fa la sa tarbiyu ne kon devise boobu nga xam ne depuis 68 la ci Serigne Cheikh Ahmadou Tidiane si joxe ndigal bokkoo ko magam ju baax ji Serigne Mansour si COSCAS boobu bi ñu koy créé 61 personnes la woon. tey nag bu yaatoo ba ñu toll ci ay cinq mille ñu war a organiser guddi yonent bi Serigne Moustapha wax ne la woy juróom ya waxoon moom la yeesalaat mooy ñetti division yooyu ñëpp nañ ci bàyyi xel ñëpp nañ ci bàyyi xel taxawaay ah ñuy wax it guddi yonent bi dafa am lu mu laaj mooy départ ba sa kër yéene ji mooy même habillement yi ngay dugal sa saak fas ko sol ci guddi yonent bi na ko bàyyi xel boo dee góor wutal sa vax wala sa lin wala sa fil nga fóot ko ba mu jekk ñett fanu gàmm yi muy fin burtu bi noppalu bi gàmm gi saa yu xëyee nga sol lu sel wat seeni karaw xam ne ay taalibi tijaan dafa am lu ñu leen xamee ñu baal ma taalibi tijaan du dërëj taalibi tijaan du def eh, yi xale yi def léegi araw seeni bopp taalibu tijaan liñ ko xame mooy wat sa karaw ba mu jekk kon loolu bokk na ci li message yi sëriñ bi joxe ci gàmm gi bu dee jigéen ñi ñu sàkku rekk ñu bàyyi xel seeni e, yaram ndax bëgg ñëw teewoon sol lu gàtt walla ñaw loo xam ne ah boo rombee nit sa e, sa cër yëpp yi feeñ loolu sëriñ bi bokk na ci mu bëgg daal njaboot gi bàyyi ci xel te mu gàmm gi nag defe naa ne mooy temu jamono te mooy temu sutura mooy temu waxante lu baax mu defante lu baax te mu dégg sa mbokk jullit lu baax ngi dëggal ko ne mbaaxam ëpp na foofu te mu dégg sa mbokkum jullit safaan nga ne nañ ko doolee ñaanal yàlla ah lii dey xanaa cat la wala lii dey du jikkoom mas naa dégg ci sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu wax ca kër jëmb mu ne nañu suturaalante ndax gubu bu gubu euh, dugub bu piccu tagul amu fi bu mu jeexalul moo fi nekk loolu nag bu ko sëriñ si wax kon ñun taalibe yi thème bi ñu ànd ci gàmm gi suñu alal la surtout nag ñun jeunesse Sénégal fi ñu toll ñu moytu réseaux sociaux yi dana yàq kër dana yàq ñaar ñuy sëy dana yàq ñaari xarit dana tax nit xeeb kilifa diineem ndax léeg ñu wax sa sëriñ loo xam ne sax du loolu waaye na nga ko war a défendre da nga koy défendre ba ñu dugg ci beneen sujet boo xam ne du sa cër loolu nag sëriñ ab danaa wax ne ku am kilifa doo gàgganti ko ci mbedd sëriñ ab daana wax ne bu ma saagaa toogal jàngal ko faatiya te dem loolu foofu la jamono toll waaye ñu wax lu loo xamul sa sëriñ nga dugg ci siti ne yaay tontul kër gi kër gi am nañ ku leen tontul kër gi am nañ ku leen waxul ndax wolof nee na ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong di jaar njaboot day am kilifa xam fi muy waxe xam fi muy tontoo xam ngi ki mu war a tontu parce que wolof naan borom gémmiñ guy yi du wax jàmm waaw kooku bu toogee ci internet bi di wax lu ko neex yow ngay taali bi am kilifa bu tontu bàyyi ko mu wax bu njaam yàggee nga war feeñ jamono bi ñu toll nag yàllaay tontul jaam yi kon ñuy dénkaat ndaw ñi rek nañ ñëw ak dal nañ ñëw ak teey nañ ñëw ci sutura xormaal nag suñu doomu sëriñ yi nañ xormaal suñu doomu sëriñ yi fu waay mën a ne bu la njaboot rombee mu wóor na kii njaboot la moo xam ku sëriñ Cheikh Tidiane jur moo xam ku sëriñ Mansour jur moo xam ku sëriñ Moustapha Sy fu faas jur moo xam ku Baay Maalik jul ñëpp suñuy kilifa lañu suñu wayjur bu baax alaaji Ibrahima sàmm dañ daan wax ne 83 bi ñuy door a ñëw Tiwaawan di tànti mu ne boo leen bëggee jariñu boo leen demee kër Maodo fekk fa sax ginaar guy taxawaalu jàpp leen ne Maodooy dox fekk fa ginaar guy taxawaalu jàpp leen ne Maodooy dox fekk fa xar wuy taxawaalu jàpp leen ne Maodooy dox kon ñu njaboot gi ndaw ñi nañu ormaal suñuy doomi sëriñ nañu ormaal suñuy doomi sëriñ te bàyyi leen xel loolu daal bokk na discours yi nga xam ne daal ci ndigalu président national COSCAS ak le secrétaire à l'organisation di xalifa Babacar Niang ak adjoint Pape Amadou Faye bëgg nañ daal njaboot jëpp bàyyi loolu xel ah ku ñëwit Pape Souleymane Guèye danaan wax lu am solo ne Tivaouane ku fi dugg war nga ànd ak njàpp fu sa njàpp toje war ma koo yeesal fu waxtu julli jote lum la fekk war ngaa mën a bàyyi loolu dem julli ji ndax borom dëkk bi di Seydi Hadji Malick loolu la jàngale diine màggal gunni yenent bi sel ak sellal ak laab loolu daal mooy kàddu xalifa bi mooy kàddu njabootam mooy kàddu taalibe yi ñu ndaw ñi nag ñu góorgóorluwaat nag suñuy diggante góorgóorlu ah dëkk bi nag mën xat ndax fu ñëpp lu ñëpp bokk bu ko ñëpp soxlaa ci benn waxtu dana xat waaye ñu demee ñu demee xel te bañ a demee xol ñun taalibe yi nañ demee suñu xel te bañ a demee xol dégg naa ci Baye Malick daan sëriñ Pape Malick si yàlla na yàlla dool leeram nee na léeg nga ñëw gàmmu sax nit romb la ak ëmbam fël la ne ko sëñ bi diis na de waaye jeex na ba pare waaye nit laal la nga ne ko waroo laal bul ma bëmëx bu ma def nangam loolu du ciru taalibe su ko defee daal kàddu yooyu daal lañ doon wax mu néew mu bari ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu yàlla nañ ci yàlla defal lu ëpp suñ jot ci barke sëñ Babacar Si waaw lu jiitu koskaas mooy dëkk bi borom a ko garanti muy Seydi Hadji Malick garanti bi mooy lépp lu fi ay ñaan na ko waaye nag du tere li sëriñ Babacar di waxoon ca woyam wa rek sabablu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yi sabab boobu nag ci wàllu koskaas am na commission vigilance boo xam ne moom lañuy créer commission ba bari na mën na yegg ba ci six cent personnes commission bi rek ci euh, xurum bi nga xam ne mooy diggante zawiya yi mooy fépp fu ne ci Tiwaawan rek ñu yaakaar ne xam ne bu fa euh, njaboot teewul war a mën a contrôler la lu aajowul ak guddi gàmm gi dana fa am commission yooyu tas nañ ko fa. ba nga xam ne xëy na li nga te yu xam fi fi wax ji jëm xam fi jamono toll ci détail yooyu yooyu yëpp bàyyi nañ ko xel bàyyi nañ ko xel ci wàllu administration ci wàllu GMI police. waaye bàyyi nañ ko xel ci wàllu koskaas ba nga xam ne fépp foo xam ne nit war na fa mën a nekk def fa la wolof yi daan wax ñiy gàmmoo ñiy raas dem bokkul du ñu ñàkk nag waaye danañ ko fexe ba sauvegarde ko ba nga xam ne ah nam daan am ba mosul am day am nañ yaakaar lépp loo xam ne bokkul ak illay jataay bi illay guddi gi daal li mu laaj mooy koskaas taxawaay bu mu war a def ba ñu jox gàmmu gi àqam waaye jox dëkk bi àqam ci sell ak sellal ak jox guddi gi àqam lu ñu mën daal danañ ci taxaw lu ñu mën nag danañ ci taxaw ci eh, kàttanu yàlla ñaan yàlla nit lancé waat nit ñi appel xam ne benn waxtu la benn guddi la benn benn heure la nañ jox yàlla lim moom waaye nañ delloo borom guddi gi di Seydina Mohamed limu moom ah. jërëjëf